sëñ Sall ndigal moo may woo nii waaw xalifa waaw sëñ Saliou <laughs> waaye xoolal ma fekk nii may def conférence de presse wala déedéet déedéet yaa ngi yaa ngi ci biir déranger woo ma de <laughs> gars yi nee na gars yi nee na nga déranger leen <laughs> ah, ah, waaw waaw di wax ci 17 avril bi waxaale ci ci yow la ci yow lañ nekkoon nii sax na kon de kon de baatin la barki Serigne Saliou Mbacké. ak cant waaw barki Serigne Saliou lépp sëriñ bi moo koy moo koy programmé. waaw wallahi wallahi barke waaw gaa ñaa ngi nii journaliste yëpp ñëpp a ngi lay déglu. loolu ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay bàyyi xel aussi di la ñaanal. am naa bànneex bu rëy. allah macha allah. ndeysaan mhm. macha allah ah, alhamdulilah cuun jërëjëf wallahi wallahi wallahi cuun mhm. coy ndeysaan ndeysaan wallahi Mm-hmm. alhamdulilah Thioune ah, jërëjëf <laughs> <laughs> jërëjëf Thioune waaw jeex na waaw dégg ngeen <laughs> jeex na jërëjëf sëñ Mhm. Mhm. Mhm. waaw sama diggante ak sëñ Sall euh, diggante Cheikh Béthio la ak Mouhamed Niang ndax sëñ Sall dafa fekkee lu bari euh, amu du lu bari daa fekkee sama njëlbeen dafa fekkee lépp bi may door ba. fi ma yegsi ci kanamam la muy sama jur ndax moom ak sama sama wayjur la ni sama jur àndeek cheikh bi te it ñuy ak bokk dox ci sëñ Saal yàlla dimbali ko nag euh, mu nekk ku mës a jege cheikh bi xam ay bëgg-bëggu sëriñ bi xam ay yitteem ba buñ daan mës a voyager fu ñu mësaan dem ci àddina sëñ saal mooy mooy mooy moo daan dox suñu passeport yeeg visa yeeg lépp ci loxoom la daan nekk kon moom xam na li sëñ Béthio bëgg loolu moo waral euh, mu yàgg ma bàyyi xel ndax dafa fekkee jotaay yu bari yu cheikh bi di waxee ci man loolu nag mën naa ne bokk na ci li mu jàpp xam na ni man liggéey bii nga xam ne moom la Serigne yu jox way juróom man damaa bokk ci mission bi moom loolu la xam nag xam gi mu ko xam a tax mu ma ci woo waaye fekk na laataa mu ma cee woo man wuyu naa ko bu yàgg waaw. <laughs> moom euh, bu weesoo sëriñ gi mu doon ci man ak xarit gi mu doon ci man ak sang bi mu doon ci man maay fan sam nag maa koy daaneel waaw <laughs> nag ni ma doon daanelee way juram noonu laa yow daan noonu laa koy daanelee. macha waaw bi mooy dernière ma woowee léegi moom vraiment gis nga dama dama ko sax dagg parce que téléphone bi fii la tege woon dama seen appel bi rek euh, sama xol sedd na ndax hasard amul. te lu lu lu yëngu rek euh, baatin ba sunu borom la moo tax dañoo nekk nii te bi muy woote fekk na ngeen may laaj ci moom loolu kon mën naa ne lépp sunu borom moo ko programmé bi ma bi ma gisee appel bi sama xol sedd na dégg ngeen ni mu waxee sëñ Saal moom nii rek la mel nitu yiw la nitu jàmm la nitu ngëneel la nitu tawféex la lii nag daf may gën dëggalaat rek ànd bi nga xam ni Serigne tubaat dogal na ko te ma war koo ànd moom ci liggéey bi confirmation boobu rek la doon def.